bonsoir. Nous sommes euh, ici au R7 municipal de Mbawa concernant la deuxième journée de la zone 14 de l'ODECAP de Pikine, c'est-à-dire la zone 14 de Kermbeifal. Euh, jamono mais de Là, c'est Manco qui mène 2 euh, buts à 0. Nous avons à la 60, 48e minute, 3e minute à la seconde période. Manco 2, Goum 2 buts à 0. Comme jàppal ne ñaari formation yi ñu ngi doxal bu baax boo xoolee jamono ji Wa Manko yi nañ dugg si nañ bu a waa côté Manko c'est Renaissance la défenseur central que va-t-il eh, son latéral mu di aj ballon récupéré toujours par le dossard numéro 8 bu sedd équipe ñàkk nañ récupéré par l'agent Manko attention euh, génne na bal bi noonu. am jégalu bu baax a baax caméraman ma man dafa xaw topp benn bii bi la junj ñu ngi jégalu mais jàppal ne maa ngi koo devant une grande formation de renaissance. mu ngi noonu yéen a ngi dégg noonu les supporters de l'ASC Manko qui donnent de la voix. les supporters de Manko qui donnent de la voix tous pour l'ASC Renaissance dans la zone de Manko jox na lu muy def il fixe son vis-à-vis il ne passe pas ballon toujours pour les verts oh récupéré toujours pour l'ASC Renaissance Renaissance ñooy doxal noonu waaw waaw y'a l'ambiance totale nga xamante ne mooy ASC Sude bir adı par la Chine. 57-70. Les gars, voyez, l'édition de soirs. L'édition de soirs de la IC Renaissance. de Bizarre à en faveur. Mango qui vient de réduire la main. pied de Louis Lamar. Pour le moment, Manko qui mène 2 buts à 1. bon tacle. Bon tacle de latéral. Latéral. Latéral de l'AIC Renaissance. Il nous pousse pour l'AIC que pas exécuter son latéral. À dans la poule. Le film-toi l'union. Dans la poule. Mauritanie 18 ans a été battu par des coups de 2 buts à 1 bokku ñu Ramdaan Mengo Mesere rakaaju dinañ dellu si waat si résultat yi bu jógee foofu dañuy xuusandi dal di dem ba tey la zone zone entre Diapo et Khalé Cité zéro bi partout la zone 3A Arafat André Kenny 0-0 Dego Dego Daromane est tenu en échec par Monseré un but partout Teranga ki ba Walidan 3-0 Super Zone a et 3B Jàkkaarloo Xeet 1-0 Louis Solane ki domine ASEC Salam champion sortant 1 but à bu ñu jógee foofu dañuy dugaat Guédiawaye voici la zone dana moom mooy li jóge ci ginnaaw démb am na la zone 13 de l'ODCAV de Pikine zone 13 attention ngi noonu waa Koumbaroos ñëw nañ di ko xool Manko ki man deux Visa fi mu ne nii ngi euh, ci deuxième période bi ah waaw yéen a ngi dégg supporters yi noonu yu Pape Traoré au-dessus des cases. entrant numéro 7 attention waa Renaissance ba tey ñooy yor bal bi noonu si zone manko contre nañ ko bal bi génn na tous. Kouthia son défenseur son son adversaire lu muy def. Amanko jël nañ dégagé nañ ko bal directement sur sa numéro 13 Renaissance mu contrôlé jox ko son partenaire y a un joueur de Manko qui est à terre y a un joueur de Manko qui est à terre et un mu ngi noonu arbitre di may loxo

C'est un bon latéral, c'est un bon défenseur euh, central te sa numéro 4 bi bu déwénee dinaa ko jënd waa Renaissance seen sapeur bi dinaa ko jënd bu déwénee mu ngi noonu waa yàlla de sa numéro 7 mooy doxal noonu mooy doxal ñàkk na bal bi c'est fini Manko qui vient de remporter BND Production nuyu nañ la daal. waaw ñu ngi leen di fay ñu ngi rafetlu seen liggéey tamit que lii lu am solo ci stade. Uh-huh. mais daal li mën a jàpp mooy gis nañ ne première journée gisuñu la deuxième journée nga ñëw dooleel ASC Manko lan mooy uh, uh, mbébétu daam ren fii avec ASC Manko. affaire yi moom xam rek moo fi comme moo daan nekk nekkatu fi xale yi ñoo fi nekk dañ topp seen ginnaaw rek puus mu dem. ren bëgg nañ daaw dem nañ final ren dañ bëgg a dem yegg fu yegg fu weesu fi ñu yeggoon mooy ren dem ba si départemental yi mais fii lañ lay commencé liggéey nag dara xewagul dañuy dañuy lu ñuy def ñun supporters yi moo si kaw ñoo tax liggéey ñu ngi rafetlu seen liggéey parce que li ngeen di def fi dina dooleel zone bi dina dooleel leen lu lool ñu ngi rafetlu seen liggéey ñu ngi sant gars nag ñu doon liggéey liggéey bi biñ commencé yàggul quoi liggéey bi nekk ko fi carrément mais ñi koy fubal moom chaque instant suñu jógee foofu dañuy xam ne ñi fay jógee moom ay gaynde lañ duñu bàyyi fekk ñee ñu ngi leen gis ci kaw dañuy gën a am courage pour jàppale leen. dañuy liggéey ngir ñoom bu baax a baax a baax. mais gis nañ ne première journée bi supporters manko yi dañoo boycotté deuxième journée bi ñëw nañ parce am na waxtaan bu si entamé entre la zone et les dirigeants waaw non loolu moom dëgg la wax nañ leen ko quoi da nga affaire yàq yàq suñ final sax laay wax ñu demaat fa fële ñu demaat gën a di noot du way foofu moo waral ñu def li ñuy def mënoon na gën a pire nii mais dañuy wax ak ñoom pour ñu wàññi ñu ne ñoom ñoo far lu ñu nekk ñun dañ leen si dooleel parce que ñoom suñ ginnaaw lañ nekk ñu jàppale ñoom bu amee loolu mer ñun dañ siy dugal suñu lox dañ def noonu arrangé waa zone parce que gis nga lii nii Sonko mm-hmm. buy joué lii moo fiy nekk lu ëpp lii fii ak fee yëpp ñoom la kon ñoom ñoo war a gën a mën a jàppale équipe bi bi sax que ñeneen ñoom ñoo waral dooleel équipe bi dalal supporter parce que li fi ñu fi am fii lañ koy amee si ñoom ñii ñun ñoom ñoo tax ñuy nekk fii di rey suñu bopp. ban message ngay yi. supporter li ngeen di lancé moom mooy lii nii continuer rek bu mu am xeex bu mu am xulo bu mu am violence comme ñoom nañ ko defee du am xeex du am xulo dañ bëgg ànd ak ñoom di liggéey ba dem final. équipe yëpp nag la ñuy wax football foo la nawetaan yàggul te ñun ñëpp xamante ne ñun ñëpp ñoo dëkk dañuy liggéey pour carte zone mbaaw Kër Mbay Fall ñi nga xam chaque jour ñu nekk di jouer fii ñu séntu leen feneen ñu romb nawetaan dem ci leneen supporters yi nag dañu leen di ñaax amul xeex amul xuloo ñun ñëpp ñoo far équipe yëpp benn lañ supporters yëpp laay wax nag ku ñëw da ngay supporter sa équipe ñoo am courage pour di jouer supporter mooy doole équipe mais amul xeex amul xuloo sport la rek ñun ñëpp ñoo far.